depuis de 2011 2011 ba 2016 ñu yàgg organiser ay activité mais ñu dem ba bëri am lu ñu jàngat bu bëree bëri mooy y' a plus de 4000 licenciés au Sénégal mais xëy na écrit bu ne boo amee 100 lutteurs at ñu ci bëri lu néew la ay 10 20 personnes lay nekk tey bu yàlla defee euh, xale yi tamit entraîné am doole yaakaar ci bëri bi da yenn saa bu ñu bëri te amuñu métier bu ñu leen encadré wul rek. tey euh, mën nañu jël beneen yoon ñoom ñëpp ñu jooy ma loolu ci la ñu taxawal la kuréel bi bi ñu ko taxawalee yàlla def ñu waxtaan ceeg lu jiitu la ministre de la formation professionnelle Dame Diop ñu jox inscription mbooloo mi direction bi signé ñu convention li ñuy wax ak yow nii actuellement nous avons formé plus de cent cinquante jeunes kon nag yàgg nañ ko def ba tey am na ci ñoo xam ni ñi ngeen seen liaas am na ñoo xam ne tey état embauché na leen ñi ngi liggéey lu mel ni Tidiane Faye caatu yaram ama ndaw loolu moo tax tam ñu ñëw tey parce que fis jugul rek pour sécurité ak leneen mais dafa jóg pour lépp bépp euh, euh, euh, branche bu nekk ci état rek muy muy agriculture di pêche di élevage bu ñu sañoon tey mbër yi gis si seen bopp tey nag ñu ànd ceeg docteur Macoumba Diouf docteur horticulture naam tey dafa ñëw signé ñu convention mais mu nekk nit ku yàlla baaxal koo xam ne wax dëgg yàlla moom it liggéey moo ko ñor lu ko président dénk bu sañoon mu partagé ko avec tous les sénégalais tey mu nekk bés boo xam ne dañoo bëgg signé ak moom convention dugg ci wàllu mbayu liggéey bi ak fruit bi fépp fu mbër nekk ñu fexe jàppale la ba nga nekk mbaykat ci dër ndax lu am solo la ndax dëgg tey làmb day suñu sport national waaye mbay day day day day day day day suñu yëf day mbiru Sénégal kon nag tey loolu noonu moo ñu tax ñëpp. tey di ci kontaan di kontaan ci la maire la Padois ak toute l' di gërëm bu baax champion yi nga xam ni tey dañ fi ñëw muy Tapha ak Eumeu Sène Tapha nekk champion boo xam ne yàgg nañu gunge tey euh, mbër yu bëri seeti nañ leen xëy na il n'avait pas compris mais Tapha bi ma boolee ñu waxtaan tey lu bëri comprendre na ko ba fu ñu dem mu accompagner ñu Eumeu aussi xëy na mbës ñu déggante téléphone yàgg na léegi laa koy fàttali xamante wuñu woon jotuma woon ci moom tamit mais dina ci Tapha moo ci moom am na yar am na teggin kon nag amoo soyez le bienvenu lii Tapha di def yow am na yaakaar ni boo ñëwee nii ñu ngi parce que li ñu tax a jóg mooy xale yi ñoom ñëpp ñu former leen ñu am xëy parce que président bëgg démb loolu loolu nga wote woon ñun daa fi des années dañ cee jiitu kon nag ku ne xam ne ni làmb dafa nekk milieu de sport boo xam ne mooy suñu sport national kon nag loolu ñu ngi ko ci woo mu jàppale ñu ci dooleel ñu. gën a dooleel Makumba dooleel fils ndax Makumba il le mérite parce que lu mu am rek bëgg na ko euh, jàppale jàppale jeunesse bi kon culture horticulture lii nga xam ne tey moom la ñuy waaj def ak moom muy signature de convention docteur Makumba ñu ngi ñaan yàlla na ci yàlla def barke parce que ci weer bu sell lañ ko def kàddu yooyu noonu laa amoon lu may wax di leen sant toute la presse di leen gërëm bu baax euh, a parce que tey euh, bu fekkee ne tey dem nañu le ministre de la formation professionnelle bu ñu njëkkee recevoir waxtaan tey ñu wax ko idée bi moom ci li mu njëkk kontaan mooy la fekk rek ñu bàyyi bitim réew ñëw toog Sénégal tey mu joxe instruction instruction mooy on a formé les jeunes y a des jeunes yoo xam ne actuellement état tey ci kuréelu fils la état njëkk embauché trois jeunes parce que Diatta c'était un champion demoon nañu ba làmb déggatuñu ko léegi actuellement ONFP embauché na ko Diatta Yarakh Amanda ko noonu la bëggee tey ñun taxawal nañu sax benn structure boo xam ne c'est arène de sécurité nettoiement déménagement loolu noonu yëpp pour créer emploi la pour xale yi ñu gën leen a mën a jàppale kooku tey ñu ngi koy gën wax le président de la ak tous les secteurs nañu dooleel parce que tey bu ñu dooleelee xëy na xale yi dinañ leen gën a jàppale suñu yéene daal suivi bi mooy li président woote ñun ça fait presque dix ans ñi ngi ci tey ñu ngi koy woo di ko ñaan mook secteur privé bi nañu dooleel ñun ñu koy rassurer ni tey bu ñu amee ay mesures d' accompagnement parce que ñun li ñuy def ñu koy def naturellement bu ñu incha allahu rabi quatorze régions Sénégal fu xale nekk mbër fa danañ la jàppee formé la topp la ba nga am xëy parce que noonu lañ ko signé ak waa direction de l' emploi mais tey lii yii la tey bi tey kii nga xam ne moo tax moo ñu tax a ñu ànd ak moom war a signé ak moom convention tey docteur Macoumba ñu ngi koy sant ko gërëm nit ku yàlla baaxal la parce que or di nga xam ne moom lañ ko dénk nit da ngay am euh, générosité nit da ngay laabir nit da ngay yaatu li Babou Fall suñu la léegi ci directeur yeeg ministre ni ñu war a mel kon moom mi ngi ci moom kon nag ñi ngi ñaan lii nii nga xam ne ñu ngi ci dugg ñu ngi ci woo mbëru Sénégal yëpp nañu nañu association FILS xam ne bu soobee yàlla bu ñu accès fu ñu bëgg ak yëpp incha allah nañ ci àgg parce que financement yi ñu ngi fi yeneen yeneen ñu ngi fi kon nag bu rek incha allah rabi ci kàttan yàlla yàlla na man Cheikh Badou Bamba man maay président association FILS waaw